tay nak euh, madame le ministre du commerce euh, dafa woté won dajé euh, comité de veille de sur les stocks comité de veille bi nak li tax madame le ministre woté ko moy que ni dañu wara xol li nga xamné ni mom moy produit manam yi nga xamné ni mom la ni gëna consommer ci réew mi fal lañ ci toll ci sen disponibilité manam ndax doyna wala doyul gannaaw lolu nak ñu xol comme produit yaa ngi fii naka ban taxawaay la ñu am pour que li ñu soxla ci màggal bi ñu jëm muy màggal de Touba ñu seet lépp ñu ci soxla ñu mën ko mën a jébbal comité d'organisation bi ak commerçant yi nga xam ne ñoom ñooy tourner autour de de l'organisation du màggal pour que dara bañ a manqué ci biir màggal bi comité bi nag bi ñu ñëwee indi nañu taxawaay ak seen seetlu bi nga xam ne ni moom la ñu def ci li nga xam ne ni moom la ñuy jéggaane bitim réew ak li nga xam ne moom ñuy defar ci biir mi ñu xool ko ci ceeb bi xool ko ci dëwlin bi xool ko ci suukar bi ba sax xool ko ci gaz bi ak meew bi ñu gis ni que ci euh, yi nga xam ne ni moom mooy denrée yooyu euh, xel mën na dal ndax c'est déjà ci ceeb bi gis nañ ni que li fi nekk ci stock yóbbu nañu ba ñetti weer ñu gis ne li fi nekk ci dëwlin yóbbu nañu ba ñetti weer li fi nekk ci meew yóbbu nañu ba li ëpp ñaari weer ak genn wàll li fi nekk ci euh, ci ci suukar bi mu yóbbu nañu ba ci lu mat ñaari weer te suukar bi gannaaw compagnie sucrière mo fi nekkone di di jey di jaay ubbi nañu importation yi importation yi liñ ci gis euh, gannaaw compagnie sucrière lu mu yoroon lu toll ni tonnes importation yi rek duggal nañ lu mat 12500 tonnes bo bolé ñaar yooyu pratiquement lolu yóbbu nañu ba weer ak lu top té gis nañ ni que pour di jëm ci organisation magal Touba bi lañu soxla ci sucre manam 4000 tonnes lolu buñu ko gissé buñu ko génnee ci li fi nekk pratiquement dafa euh, jafé du am. Euh, ñu gis ni que ci ceeb bi aussi am na ay jafe-jafe yu wax parce que euh, ci euh, Touba dafa am façon ceeb boo Mon ne ni moom moo leen gënal ci waxtu magal bi té mu nekkul bu nekkul ceebu ceeb sew indien bi muy li wax le riz intermédiaire loolu tamit comité bi dina ci liggéey ci ak ñi nga xamné ñom ñoy commerçant Touba yi pour que fep fu ceeb boobu mënti nekk ñoom buñu défé commande ñu jappalé lén nga xamné ne priorité bi pour approvisionner magal bi la nga xamné ci bobu ñu mën ko mettre à la disposition du grand magal de Touba. donc buñ ko xolé ci produit yi nga xamné ne ni moom la soxla ci magal bi suffisance manam euh, li ñuy wax euh, offre bi manam li nga xamné né moy disponibilité bi constaté nañ ko ci biir marché bi li ci dess nak moy ñu yombal commerçant yi ñu dem jëliko ñu and ak ñi nga xamné ñoy fournisseur yi ñu yombal ko aussi commerçant yi pour que disponibilité bi mu mën taxaw avant màggal bi parce que bu ñu bëggee xaar ba mu des ñetti fan wala ñeenti fan dina indi jafe-jafe parce que ñëpp xam nañ xataay Touba avant màggal trois jours avant pour déplacer moto sax problème lay doon waxtu maa nga bëgg déplacer ay camion marchandise